yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak video yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da di bés fii nga xam ne moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali TV mooy seen bi nga xam ne mooy leen jàngal seen diine jëleen yeey ci mbirum àdduna alhamdulillahi alladi alhamdulillahi alladi aghnaa الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة yéen ñi bëgg di jot wax ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind abonné ba noppi bañ a fàtte laal kolos test waaw naa wax dugal test test test test الحمد محمد با علي بدر سو إبراهيم من عبد العزيز با مامادو با أحمد لوم Gele beğenim Ahmet. Voilà. Ah, ñi ñoo fi ne de. caméra bi mooy wax TV mooy chaîne bi nga xam ne moo leen jàngal seen diine di leen yee ci mbirum àdduna الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind s'abonner ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy seen bi nga xam ne mooy leen jàngal seen diine jël leen yaay ci mbirum àdduna ah waaw ah. abaa i Mohamed commencé noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne moo leen jàngal seen diine di leen yee ci mbirum àdduna alhamdulillahi alladi alhamdulillahi alladi a'udhu billahi minash shaytan ayati rabbika fahaddi sadaqallahul aziim masha Allah takbir Ali Badara looy ñaanal sa yaay looy ñaanal sa yaay yàlla mu dem mag looy ñaanal sa papa yàlla mu dem mag masha Allah jërëjëf jazakumullahu khairan ustaz ku ci topp tegal noonu masha Allah sukran jazakallahu khairan yàlla na yàlla def ko mag mu barke liggéeyal lislaam bi jaay rasulullah maam bintu fall maam bintu fall fatimatu diouf fatimatu diouf hadi sam hadi sam bu na ñëw groupe B B B aywa hasanatu diallo hasanatu diallo fatimatu fadera ñi dégloo ñi dégloo jëlee ñaari Diouf jëlee ñaari waaw. Wara yenn ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fi nga xam ni moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali TV mooy chaîne bi nga xam ni moo leen jàngal seen diine di yeey ci mbirum àdduna fekk defoo ko wattu sama takk aniyatu yéene six Thierno Basirou Mballo Ibrahima Soñaan Mouhamad Ndiaye Ali Amen. Ah,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 ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسعا بالناسية ناسية كاذبة قاسية فليدع نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم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 عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسقيها رادية في جنة عالية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 summa inna alayna hisaabahum sadaqallahul aziim jërëjëf jazakumullah xayran kon ñu jàll ci benn Mamadou Seydou jàll na ñëw classe CP bi pare nañ ci jëm classe CE suñu pare ñëw préscolaire insha allah masha allah takbir Mamadou Seydou Diallo sax bu nga wootee benn groupe ñëw jege si bañoon quel temps waaw dañuy wax kii Ablaye Kanté ak Mouhamed Niang Mouhamed kan oustaz nga ne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

xadis nefu jàppoon la macha allah barakallahu fikum yàlla yàlla tàcceel xale bu baax takbir ustaas Christophe Mohamed na ñëw Ndeye Fatou Sarr Ndeye Ndiaye Ndeye Fatou Sarr Marème Ndiaye Aïssa Dia vraiment and your father. aywa bismillah jëlee micro bi. jël ci biir. rahmatullahi wa barakaatu xool leen ma xool leen ma yéen xale yi jooy ñi yéen ngeen jooy yéen ñëpp xanaa di ngeen préparé jooy bi ah xool leen ma waa xool leen ma ndaw ndaw aywa jeex bu leen jooy bismillah aywa xadis. Mariama Coulibaly jël jël ñaar yi. waaye bisimilah ku topp oustaz ku topp après xaaral ku topp euh, groupe bi. Astou Dieng ñëwal jege si. Fatimata Bari jege si. day soxna ñaa jege si. waaye bisimilah. Abae. وأمهات وجيوفنا القرام السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبي عظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا أو جبال أوتادا ولقد نافع لكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار مآسا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من الموسرات ماء سجاجا لنخرج به هبا ونباتا الصلاة والجنات الخلفافا صدق الله العظيم alhadis hakkol moslemo si hakko jollete alal moslemon si moromo jolletam hamsom jorom la raddo salame dellon yo wayyadatol marede seetu ko feebar watadbawol janaeze gunge new waytubawol dawwati woote yiw wa tasmiyatul aatisi nga ñaanal ko tisiyoon masha آبائه وأمهاته وجميع السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان Daayra bu Sox Saas Mohamed Ndaw Mohamed Ndaw Mohamed Ndaw Mohamed Ndaw Ndiaga Sine Mohamed Ndaw Mohamed daw mu ndaw la eh du Mohamed Ban bu ndaw bu mag la dégg هذا النوع ومنع بسم الله أعوذ بالله من آبائنا وأمهاتنا وضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 وما عليك ألا يزكى فأما من جاءك يسعى وهو يسعى فأنت عنه ترها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في سقف المكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم سبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا ساء أنصره كلا لما يقي ما أمره صدق الله العظيم min aadaawil majlisi bokk ni déglu jotaay an abi hurayrata jëlee nañ ko ci abi hurayrata radiyallahu anhu anna qiyaal karam xaala wax na isantaha aqalukum si kenn yu si yéen pare ilal majlisi jotaay wa fallu salim naniyo wa ida arada an yaquma ubakeyu fallu salim naniyo wa ida arada an yaquma

loo ñaanal sa papa. am dem màkk. mu dem màkk wala mu dem. mu dem. yàlla dem màkk ah. loo ñaanal ustaas. ah ustaas bi lay jàngal. daa na ma xaas bu bëri. waaw ustaas bi xaas bu bëri. aywa. jazakumullah xayran jërëjëf. ah. yow kay daal yéen doo ko ñuy xaar. petite section moindre section. jàngalekat. macha allah barakallah fi nga nee na bu màggee jàngalekat na bëgg a door. yàlla yàlla def oustaz wala def leen monsieur barakallah fi comme comme ñoom monsieur Camara macha allah ñu ngi nuyu si imam bee di ko dalal si jox teewaay bi ak imam jaamante teewoon na fi di nuyu mboole parent bi bi teew ziar bu baax ñu ngi dellu ci wàllu eh boole jëm toog leen dellu leen toog amélioré ci kaw kaw. waaw bisimilah oustaz ñoo jàppale ci xale ci kaw tuuti. aywa ñuy def petite section main section. xale yu am ñaari at ak genn wàll ak ñetti at jël ñetti at ba juróomi at. kon ñu dem ci bébé yi. madame bi may ñu dara la. jaaga jaaga demal ci kaw nga jàppale leen Fatima, point area. Yeah, say that. doy na yow li nga téye nii rek baax na moom jànq la mën naa mën naa téye ko ah euh, 3 ans la waaw tàcc leen Fatima waaye eh sa yaay mun na loolu sa yaay mun na ko Fatima sa yaay mun na ko ah waaw xam na ne léegi yaagal te benn bi nga koy jox benn micro bi téye ko rek wala xaalis bi day tax xale bi lu muy tal du ko concentré ba mu pare nga jox ko te ba am habitude di jox yaa say gaay xaalis bi ñoom ñoo ko yeyoo ah xale bi boo ko ñëwee fukki dërëm jox yaa say gaay mille francs moo ko jàngaloon ah? am nañu habitude boobu loolu loolu mooy loolu mooy yoon dégg ngeen xale yi boo koy wane xaalis xaalis rek lay gis ba li muy tari da koy bàyyi aywa salaamaaleykum bismillah sama yaay sama baay sama yaay sama baay yara sa doom doo màgge doo sonn doo reccu bu dee jigéen da ngay sol lu jot dama damay sol damay sol lu jot te bu mu xat te bu mu yaraat te bu mu jox loxo góor jàngal ko waxin ak doxin insa allah si borom moo koy am macha allah macha allah barakallah fiikum aywa baax na baax na jërëjëf jërëjëf jërëjëf baax macha allah. waaw ñu ngi woo ki ñu wax. Mouhamed Ba ak Saliou Fall. ñu ngi woo ki ñu wax Mouhamed Ba ak Saliou Fall. Mouhamed Ba Saliou Fall. yaa Seyda. Sey jël ma ci kaw ak jël ma xale. waaw. Eh, jàppale xale yi yéeg ñi yéeg xale yi leen yéeg waaw yow mën nga taxaw ci suuf di Ahmed Mbacké ñoo fi nekk. yaa seetla boo ma jéemoon yéeg ci añ ba ma ne ko Mouhamed da nga war mu ne déedéet koor koor bi jeex na ay Mouhamed doo ñaan sa yaay doo ñaan mu am lan xaalis Sidi doo ñaan sa yaay papa. yaa ma dem màkk. doo ñaan sa yaay. yaa ma am xaalis. xaalis doo ñaanal yaa Seyda wàcc micro boobu doo ñaan yaa Seyda mu am lan. xaalis bu bëri. xaalis bu bëri Mouhamed doo ñaan yaa Seyda. âge yu bëri aaw de l'eau potable encore guinéjo sasro sasen kii mooy sii bi lii boo la tegee sii bi rek kii mooy sii bi ah kaara jaar bi yow nag ñoom jaar bi wala wàcce leen ko ko su wàcce leen xale yi daal kooku wàcce leen xale yi aywa bismillah yaa seede ak stop Sara Tamaane ngam jaari Jaara Ngom Fatima Ndiaye Amina Sane

zambalaye salame wata yo fola tela asala Rata mal besmel ياتي ولا يغفر dee na mocco ay waay mbokku jullit yi bàyyi leen di wax rawatina wax du ñaaw allo Quels sont les produits d'engrais à ne pas oublier ailleurs Sukuli Bay Cheikh Fall Mor Ndao grand section ngoor incha allah benn benn ngoor wóyul waaw. Sarr Nana Gueye Halima Koli na ñëw. Halima Koli Mariam Sall moo doon. Mariam Sall na Mariam Naim Sall mu des ñu ngi tari de ñëwal madame day nelaw bismillah abaa ah, yi barkeel nañu wàcc ñeneen ñëw aywa teg leen micro bi teg leen teg leen aywa teg leen xale yu baax waaw teg leen teg leen maayam teg leen maayam yow maayam maa ngi loola da nga war a teew tari gis nga bu Ndeye Astou Diallo Adama Ba Ndeye Astou Diallo Adama Ba dañ ñëw Ndeye Astou Diallo Adama Ba ana Adama Ba Adama kuy góor daal képp kuy jàng rek war ngaa mën a tari boo amee ñetti at war ngaa mën a tari. waaw ñu laaj yaay bi ndax xale bi am na ñetti at. ñaata daaw. maa ngi lay déglu maa. ñaari at ñetti at yi maa ngi nii sa yaay mën na li ngay jàng. sa yaay mën na ko. ah. ah. <laughs> da nga yow du xeex rek nga mën mën nga jàng rek ah. Eh, jërëjëf loolu ñaanal sa yaay. mu am la. xaalis mu bëri. Adama loolu ñaar sa yaay. xaalis mu bëri. yow xanaa xaalis de xamu ne ni ah. ak la mu dem fan mu dem. mu dem. ah. aywa daa teel xale yu baax macha allah bis la booy affaire ah. waaw ñaari seen ñaari seen waaw bismillah. aywa stop yaa tey daal. moo xaatiya kam ni ñaata seeda amee ko comme ñëw na ba pare baax na mu daal woon mu ñëw ngoon ay bismillah il faut micro bi jege ko mu ko jox mu téye benn benn da jegeel ko rek Mama. wax da leen laal nee na lan mees bul ko jëndal mees bu ko jëndal lu xat bu ko jëndal lan lu gàtt ah yéen bu fekkee xale dañuy kolu mees xanaa amoo mees sax doo ba ñu ne sa doom mees xoolal économie boobu ngay def da cee jënd kol doo ci sonn da ci am fay yàlla nga am ci économie waaw nee na mille francs bi ah waaw fii ah, non non dafa ne yaa Seyda jëlal 1000F bi sàcc leen nga bu baax waay Fatima léegi dama bëgg suma waaqia iza waqaatil waaqia yëgal iza waqaatil waaqia lu topp laysa li waqaatiha thème la tari tarbiya baax naa jàmbaar la nag dañu ci daara ji mooy xale yi nga xamante ne dañuy jàng ci école bi di yendu ci daara ja ñooñu dañuy gën a avancé ci alquran ak ñi nga xamante ne dañuy jàng rek ca école la moo tax yenn bi am na solo lool waaw ñaan na yàlla barkeel Fatima doy naa waaye boobu ñaar Fatima li na lool ah ci doon a kii rek ah macha allah ah waaw baax na Christophe Fatima baax na Mouhamed Ndaw nga ñëw daa ci bu ndaw bi ah Mouhamed Ndaw ñëwal Farkan waaw Mouhamed Ndaw Abai wa umai وضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمن الرسول لما macha allah tàcc leen Mouhamed waaye waaye tàcc leen ko amana rasul tàcc leen ko waaye ah yéen daa mel ni tàcc leen Mouhamed bu baax a baax takbir léegi xam nga may def Mouhamed tari na amana rasul damay xool yaay bu ko mën ban meer moo mën amana nekk di loxo ah

gisee weer bi lan ngay ñaan ah soo gisee neen day wax ne yàlla naa fekkee déwén loolu la ñaan macha allah barakallahu fikum ah. Inside. ah Mouhamed daaneel na ma waay yow tas leen Mouhamed bu baax waay dama bëgg yéen ñëpp ngeen ñëw ñu jox Mouhamed addiya joxoon Mouhamed addiya. Ah, kan mooy ñëw jox Mouhamed addiya. déedéet déet. ah. des na 3 mois aywa kon xale day tari ku naan sama doom xale la du tari. képp ku képp ku kontaan ci Mouhamed ñoo jox ko addiya ñoo leen jox Mouhamed addiya ndax alquran karim jottali leen mu ñëw rek jottali leen rek mu ñëw aywa Mouhamed kaay aywa jërëjëf maam ah dëgg la dëgg ndaw joxe Mouhamed adiya waaye tural Moustapha Sy. yéen Sidi Sarr. ana ñu yor sécurité bi organisation bi gisuma leen de ana ñu. ana ñu. dimbali leen ma xale yi toog ñooñu. nañu toog dellu si ginnaaw ñoom ñëpp. Eh. dugal bu 3 heures jotee wala 2 dañuy dem añ ci daara ju xale yi yéen yaay yi bu leen neexee koo xam dafa sori mën na ñëw añ fii xale yi dañuy añ si daara ja buñ paree ñu continuer incha allah nañ ay neexal ñu xaar ko ñu xaar xale yi képp du ma doom tari na rek nga dem am na xale yoo xamante ne ñooy composition dañu def seen ay neexal ñu xaar ko boo am na ñeneen ak yeneen yoo xamante ne xale yi dañ koy def du tari rek théâtre wala leneen ak leneen teel a loolu balaa muy dal ci xale yi delloo ñu ko ci ginnaaw Moustapha Sy 18 ans lim na ko ba mu jeex yaa ngi dégg boo jugee pour julli lan ngay njëkk a def Mouhamed jox ko benn bi jox ko benn bi boo jugee pour julli lan ngay def. Allahumma barik إذا وقعت الواقعة يا بسنغامي يا بي إذا kii lan saar jàng na saar bi après boo jàngee saar bi looy def. julum ñu xool. waaw. ma ne ko ban saar nekkali boo kàbbaree ma ne ko sootul fàtte. waaw lu ci def. ak saar bu ma neex ma ne ko ban saar la la neex ma ne ko ci daaw waxaatul waaqia. waaw léegi soo jàngee Mouhamad xool ma boo jàngee sootul fàtte na ak ci daaw waxaatul waaqia soo paree da nga yëngu ko boo tëjee la ngay wax tëggal nga wax ay wax. bu baax a baax jërëjëf jazakumullah jeex na yaasi daal aywa ah. euh, kon petite section moyenne jeex na rival CI yi ña am ci tuuti rek CI yi quelques groupes stage ñu avancé tuuti grande après ngoon incha allah waaw kon incha allah bu deux heures demi jotee xale dañuy pause ñu dugal waa CI yi ci kanam tuuti incha allah xale yi dem pool alhamdulilah ñu ne loolu yéegale incha allah préscolaire ba nañ dem daara préscolaire dañ dem daara ba yeneen classe yëpp dem école ba incha allah fa la ñu añee organiser ko incha allah aywa ñu continuer ñu continuer ñu ngi woo classe pareeguñu bu leen demagum bu leen demagum pareeguñu ah séeréer yooyu toog leen toog leen moom bu jóg bismillah bismillah maam jaara taal maam jaara taal hawa ba hawa ba Astou Ndiaye. Astou Ndiaye. Khadijatou Diallo. Khadijatou Diallo. Ay, ko na na jël benn bi ko xam nga waaw jëlal jëlal bu mag Arbeit. jërë jëf macha allah ah wax yi am na yaa sëñ Agus Tom Oustaz Tom waxal ma dégg rek. Insa Camara ñëwal Malick Diop Babacar Sy Amadou Diallo Ousmane Ba. bismillah. Malick Diop Amadou Camara Insa Moussa Ba. Insa Malick Diop Babacar Sy Amadou Diallo parents neen xaar ci bâche bi incha allah andi dina ñëw fii su def dañuy pause incha allah et ngi leen di sàkku ngeen xaar sécurité bi demee pause ngeen sàkku incha allah yi yaa xam ne mooy am ci àll malaaka yi duñu lekk te duñu naan waaye duñu lépp lu leen yàlla def sant nañ ko ci dee macha allah ayo bismillah <laughs> amuñu morom seen yaa Seyda yi amuñu morom jazakumullah xeyran kon école Abdoulaye Massoud day jàngale français di jàngale arabe ne xale yi di amee CFEE arabe noonu la ñu amee CFEE français ñu ñaar suñu candidat yi dem ren yàlla am loo yal na yàlla defal réussir 100 pour cent arabe bi génn na CFEE arabe bi dañ ko joxe incha allah ci kanam bu dee français bi génnagul ñi def tamit BFEM fii xale yi dañuy def BFEM français comme ni ñu koy defee ci CM yi. comme niñ koy defee ci yeneen école yëpp programme bi ñu jàng foofu la ñuy jàng fii kon yal na yàlla barkeel lépp yaa say daayeg monsieur yeeg madame ku ci topp a ah, ñu continuer Mame Diarra Manga ulay siis Mame Diarra siis Mariam Thiam Mariam Thiam Mariba Mariba Dieynaba benn sël amu fa ñëw ñëwul keneen waaw Jalika a jege si Jalika Kamara jege si ñu bàyyi xel xale yi am nañ ay neexal yu am solo am na yeneen yu ci ay théâtre ci kanam incha allah ngoon gi mooy dàq suba gi incha allah ndax waaye ngoon koy dàq incha allah ayo bismillah a baay wa o wazomala etarame wadoyo fonal keram assalamu alaikum warahmatullahi seytaane soxna Marème juróomi benn boo ci baay ndax sa islam wér na ak julli woor weer koor natt azaka aji màkka ci boo ko mënee benn boo ci baay sa islam wérul kon nag mbokk yi juróom yi mooy fondement l'islam ku ko taxawal taxawal nga diine waaye ku ko màbbal màbbal nga diine. ku koy def taxawal nga diine mooy lan. amul benn buur bu war a jaamu ku dul borom ah. boole ci gëm ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni doole ci julli taxawal julli seen doom yi ku bàyyi julli dooli nekko julli ak lan joxe azaka ku yàlla may alal nga lànk ne doo joxe azaka màpp nga benn fondement ci fondement diine yi na nga xoolal ak ban mu ne nga am alal pour aji Makka yàlla mun na la ko war nga wér gu yaram nga bañ lànk ne doo dem aji màkka te mun nga ko war nga fa mën a dem boobaa ma bëgg benn ponk ci ponk lislaam ak weeru weeru koor yàlla may la wér gu yaram weeru koor ñëw nga ne sama estomac bi sama sama sama ndax bañ a woor xale yi nee nañu ku ko def ma bëgg lislaam sa benn ponk ci ponk lislaam si def bu topp mën a jeex kon juróom yooyu ngeen bàyyi ci xel bu baax moom la xale yi di wax kon xëy dañuy julli nañuy woor nañuy joxe asaka nañuy dem màkk bu ci amee waaye nañu gëm yàlla gëm di waaye gëm yonent yàlla Muhammad ne moom la yàlla yónni kon xale yi la leen di woon madame. bonjour ça va bien, merci. un élément technique. Un un élément fabriqué par Dieu. Comme les, comme les autres sculptures, etc.

آبائه وأمهاته وزمائه Diallo Amadou Kande Babacar Camara Moustapha Aydara anamu incha allah bu ñu dañuy dellu si waat bu ñu trois heures incha allah yi incha allah añ dina teew si fii bu ñëwee ngeen organiser ko fii incha allah bi ñëw leen fii ñëw leen si man fii Moustapha Awa Dia dama indi moom dafa génn mu dama indi moom ñëw nañ ah. ah. fii yéen ñëw Bassirou Diallo ñëwal ñëw leen ana ki des ñan nga woo sa yarati Babacar Camara anamu ak kan Moustapha mu ngi ñëw Oustaz kii rek moo fi nekk Bassirou Ba ana Bassirou Ba Bassirou Diallo anamu Basiru Baar bala ah, bala ah. la Basiru rakk Ousmane Basir Basir Malick Ciss ñëwal ana Moustapha Aïdara Moustapha muy ñëw ñëw na yaa Seyda bu dee xale fii baax na ñu ngi leen añ préscolaire bi wala ñu dem jardin ba léegi bu ñu dem te daara ci internat ba préscolaire doom moo koy dugg yeneen élèves yëpp nañu dem nañu xaar tuuti ñuy tari ah. aywa Ibrahima jëlal nañu ñëw oustaz na ba na Malick ñëw benn yoon waaw ba groupe dañuy jël pause incha allah bismillah jël leen jëlal abai wa umu wan ñu nan lañuy defee kabaru armal allahu akbar kon bii mooy kabar bi njëkk si julli aywa Moussa kii Amadou lan mooy rukoo wan ñu lan mooy rukoo allahu akbar soo rukoo lan ngay wax subhaana rabbi subhaana rabbi al azim subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal azim soo siggee si lan ngay wax nan la sujootee allahu akbar soo sujootee lan ngay wax subhaana ci sujoot ba toog lan ngay wax allahu akbar rabbi afilli rabbi afilli rabbi afilli aywa shukran kon noonu boo paree nga taaya daa di sëlmal léegi ban message ngay jàllale si julli kon mbokki ne leen julli te respecte faratay comme ni ko suñu borom di santaane macha allah Moustapha. nga ñaanal sa yaay de ak sa maam war ngaa ñaanal sa maam dégg nga aywa kon parents d'élèves bi kon ñu ngi yamale fi première partie bi incha allah. ba xam ne mooy am ci Ali Imran li ci ngoon moo gën a neex li ci suba incha allah. booba xale yi daara day ñëw day joxe prix day joxe lépp loo xamante ne ay théâtre ak yu mel noonu yëpp a ngi ñëw ak eh, diplôme CFEE yi kon benn xale bu mu ñibbi parents yi na ngeen toog xaar incha allah ci kanam ñu indi ci yeneen incha allah programme bi wa jazakumullah xayran asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV di bés fii nga xam ni moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi mooy chaîne bi nga xam ne moo leen jàngal seen diine di leen yee ci mbirum àdduna الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلا yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am